waaye di nit ku baax ne Cheikh Mamadou Bachir ne Moustapha Sow dafa jàpp ci bis bi ne sëñ Moustapha ñu ngi lay nuyu ñu ngi di nuyu sa doom Sow di nuyu soxna Astou Ndiaye ak rakkam ak alaaji kam yi ñu àndal Moustapha lu mu mel rek yow la léegi nag Cheikh Mbacké ne mi ngi nuyu Serigne Mbaye Sarr Sénégal Tour ne Mbaye Sarr dafay xaritam di wëllëreem di nit ku baax Serigne Makhtar Diène Diène yow jërëjëf yow as góor nga ab jullit nga yaa ngi liggéeyal sa yaa ngi jàppale président de la république Alaaji Sulay Jaañ jàmbaar jërëjëf Jaañ yow nit ku baax nga ne sëñ bi ku bëgg baax nga ne Sulay Jaañ yow yaa ngi liggéey Serigne Touba. yaa ngi ànd ak suñ rek Cheikh Sylla ne sa taxawaay ci bis bii ne ñëpp gis na ko jërëjëf léegi nag Serigne Cheikh Mbacké mu Serigne Abdou Salam jërëjëf Serigne Cheikhouna Mbacké transfert jàmbaar ji bu Serigne Fallou jërëjëf Serigne Djini Dubaay jërëjëf sunu xol sedd na Serigne Fallou Mbacké transitaire day organiser moom ne tey da ko fee indi pour muy xool li fiy xew Cheikhouna Gueye jërëjëf sama doom la sama xarit léegi nag sëñ Madika Seck bu ca mi ngi ànd ak Pape Momar Gueye ñu ngi nuyu waa Thiénaba di leen siyaare kon nag sëriñ Mahmadan mu Cheikh Abdoulaye Lahat yokkum jumaa ji Cheikh Abdoulaye ta bibliothèque di baayam di xaritam di soppeem ñuy sàkku ay kàddoom dañ koy bëggee mbooloo mi dina bëggee njabootu sëriñ Tuubaa dina bëggee kon sëriñ Mahmadan tafadal cheikh dugal ko ba ba baayam nag cheikh Abdoulaat moo àndoon ak sa baay waa dëgg la cheikh Abdoulaat moo daggaloon ay tool sama baay ni ko kay bay géwél buy bay ci tool kenn mësu koo gis délégation sëriñ Pape Malick Sy sëriñ Sidi Ahmed si da baax ju baax ji moo ko jiite mook maam Alpha si sëriñ Babacar Cissé mu soxna umu xayri si da mi doon wax soxna Fatimatu si ma imaam Mouhaydin Sow sëriñ Ousmane Lo sëriñ Modou Sarr mu baax mi sëriñ Babacar Diop sëriñ Mbaye Kane maam Ousmane Samb su la neexee nga ni alhaaji Moustapha Ndiaye ak alhaaji Abdoulaye Dia ci délégation Pape Malick si lañ bokk ci Daaru Salaam lañ bokk ci sëñ Bas lañ bokk ndax ñoo moom bis bi fiñ ci féete dafa bari lool fa tabaarakallahu kii di wax nag moom la Cheikh Abdoulaye duppee Serigne Mahmadan Koso mu se mum borom daarul muxti kii di wax mooy doomi soxna maa si silla ak Cheikh Abdoulaye Lahat kii di wax booleem bi ca Touba ñëpp a ko xam su añ jotee moo ñëpp ñu añ su reer jotee moo ñëpp ñu reer du paree nag paree bi mooy wax kàddu gi ma nga jëm ca borom aafe ki maamam sedd ki maamam seddu cër muy Cheikh Moussa Abdoulaye Karam